asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki liftahu wahab liya wa suqni mko nil aana dayqi asil ajilan bil bishri mahmaradin xata uqima li dini lahi arkana yasiru joxi li tuuba waxmini waqini adal wara واكتب لي سما كان لك السماء والاراضي والهواء بلا مشارك ليروت ما شكه بانا اجب وسلم برسلي على سندي محمد وتبل بانا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيجي نيوبو bu baax di di ndokkeel jullit ñi fu ñu mën di nekk ci àdduna bi ci safar xam ne mooy safarul xuruj bis bi bi Sëñ Tuubaa génn neen néewoon Mbàkke Bari di jëm ci liggéey bi xam naa ñu ñu ñu war a waxtaane werdul maxus maanaam wér bi nga xam ne si si si Sëñ Tuubaa ñu ngi ko jëlee ci ci ci ci suñu borom jaarale te mu jaarale ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam naa kon wér wér kon la ñu njëkk a waxtaane wér wér dëgg buñ ko buñ ko buñ ko ko waxee ca mag ña du weesu rek at talahuju bi mahamidil bari taala taashuqan wa xuburan min qibali taalibi tariqil xaq mooy koo xam ne daal da ngay tudd turu borom bi ngir sopp googo sopp ak di di di bég ci moom bañ nekkee Baxdaad ginnaaw yent bi bi bi alayhi salaam yent bi daana jox yenn ci ci ay werd daana ko jox saxaaba yi lu mel ne naan so subhaanallahi ci bi hamdihi subhaanallahil asiim soo ko waxee téeméeri yoon kenn du jëf ci bis ba lu ëpp lu lu gën la nga def xanaa xanaa kooka daa wax ko daa werd loola lu ëpp di bi nga ko def daana daana jox ko mel ne si duna ay ay bagages yoo xam ne du du ko jox jox ñëpp bañ demee nag ba ci gàddaay gi ca ñaareelu téeméer ba saxaaba yi ña ngay jeex waaye nag tabiin yaa ngay dugg si suuf yaa ngi daal di juddu lu mel ne ne maaruful karxi yi ak al imaamul junaydi si seqati yi bisimilah xaafi gaa yu juddu si Abubakar Sibli ak xalaaj Habibul al ajmi ñooñu daal noonu tabaxa bu njëkk ba daal di juddu booba nag mag ñi nag buñ toogee ku dikk fi ñoom laaj leen dara ñu jox la ko. booba nag tariixa bu booba ju di ko gul booba. ba loola la amee nag bi nga xamante ne. nag mag ña jeex nañ nga xamante ne nag léegi nag tariixa daal di juddu nga xam ne ku mel ne Cheikh Abdou Khalid ji jëlaat ak Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ak Cheikh Abdou Hasan Sasali daal di yeesalaat yoon wa. werd yi nag tàmbalee nag daal di tënku nag nga xam ne am na am na mën nga ne kon anwaa anwaawul werd yi ñaata la werd yi seen wirgo yi ñaata la nga ne kon am na lu ñuy tuddee al dikrul al mufrid wa zikrul mujarrad wa zikrul istilaam zikrul al mufrid wa zikru kalimati tawxiidi allati bañ xam rek ni nga xam ne yonent bi salaam ne woon na kat maanaam kenn du wax lu gën loolu yonent ya ba tey te moo di laa ilaaha illallah loolu loolu mooy waaye nag dafa am nag aw tàngoor soo ko soo ko dee werd da nga am tàngoor ci way am da nga am xeeti ñeme dëgg goo xamante ne jëmbul ku kuy nekk ci nit nit ñi du ko mën a def te te laa ilaaha illallaah am na ci xadis boo xamante ne su su fekkee ñi ñu ngi koy riwaaye ne ne sayyidunaa Aliyu la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam sawoon ñett ne ko Jibril noonu la ma ko sawoon ne ko sunu Boroom noonu la ma ko sawoon muy loo xam ne ñoom ñi ñi ngi koy ñi ngi koy wax donte ne ku mel ne Ibnu Taymiya rahimahullah dara wérut waaye waaye ñoom fa fa ñoom wér na. maanaam kon su waa ji dee def noonu nga xam ne mi ngi werd lu mel ne laa ilaha illallah nag day fexe ba cir yi di werd mooy xoqu xur boobu ya maanaam day fexe ba mu taxawee ko mooy li yàlla bëgg ci moom te mooy ashariatu al al mutahara lu mu ko digal mu mu def ko ndax loola mooy xa xaqiqatu rububiya wala aqi rububiya mooy loola. bokk na ca ndax ndax léegi aqi rububiya bi nga xamante ne mu bi gën a foor te te mooy xaqiqa moom moom moom ñëwagut addikul mu al mujarrad ñëw. bo boobu bu- bu nag ki nga xam ne léegi mi mi mi mi ngi dox dëgg-dëgg nag kooka moom noo lay noo lay sikkare xanaa moom léegi teewlu yàlla lay doon mooy dikrul qalb wa lisaan bi lafsil jalalatil muaddama wa huwa dikrul afraadi min al basari wa sirhu maalum ñoom ñoom am na ñoo xam ne da- da- da- da- dañuy sikkar di wax allah am ñoo xam ne sax da- dañuy dem ba naan huwa huwa am ñuy dem ba naan hu hu rek am ñu am ñuy dem ba sax ba ba far dootuñu tudd dara waaye dañuy teewlu jëmmi mi borom bu bu bu bu tëdd bi. waaye lo- loolu moom ay ay yëf la zikrul islaam te mooy zikrul quraba alladina tawallahum yadudul inaayati wa axazathum baxtatan min riqil axyaari wa sajjathum bi rifqin fi mataxil axyaar wahum man yuqaalu fii xaqihim kaana huna wa dahab loolu moom xurabaa yi am na am na am na si- am na am na ay sikkar yu ñu sikkar yoo xam ne ñoom eh, seen mbir la du du mbirum mbooloo mi si kon sikkar nag bu dee no- no- loolu mooy melo yi mooy wirgo yi façon yi am na nag darajaat yi daraja daraja ci état bi nga xam ne moom la sikkar am kuy sikkar doo sikkar doo ngay yem ca waaye am na lu ñu tuddee sikkarul jawaare cër yi day sikkar mooy cër bu nekk ak xam ca la muy werd loola dajaa ci war a feeñ maaxus bi bi biñ jëm ku koy sikkar ku nekk maanaam wëratoo moo yàlla sa cër yëpp daa war di jaamu mu sa borom làmmiñ wi dootu waxati lu dëgg cër yi ci ci des yëpp moom it dootu wóote ak sharia dikrul xulub sa xol bi ci nga fexe ba mu moom it ba du ba du du du mu yàlla nga xamante ne léegi ci xol bi noonu mu muy noonu làmmiñ wi di tuddee baat bi la la ko xol bi teewloo sikru sarair sa biir adduna ji li muy tedd tedd tedd nga xam ne yàlla ko bind àllaaxira la la la la muy tedd tedd te mooy ajjana yàlla ko ko bind sawara la muy tedd tedd ndax yàlla ko ko bind yow su yitte du ca jëm mukk waaye yow su yitte mi ngi jëm ci yàlla rek na nga xam nga- ndax su borom moo am dul moom ab jaam la kon sikru ruuxi bi raax léegi am na ñoo xam ne nee na ñoom dañuy sikkar ci ruux nga xamante ne mand gu gu ñuy mandi ci ci ci yàlla teewlu gu ñuy teewlu su borom waxtu wu nekk loola mooy seen sikkar xam nga ko ñoom dañuy dañuy dañuy xaw a kon niroog maanaam malaaka yi loolu loolu lu kon xeeti sikkar la bu bu bu- bu am solo ndax ma nga ne sikru sraïr moom da ngaan mooy nafi shuhudi siwa inda shuhudi su su subuhaati tajalli liyaati hadratil quds maanaam léegi se maanaam sikkar bi nga xam ne su bajj moo ko moo koy def moom mooy nga ci nga bañ a teewlu kuddul borom bi sikru ruuxi nag bi raax mooy naf yu shuhudil mahwi al maanaam nga xamante ne ni nga fare lépp ci sa xool da ngay fexe ba doo koy ci ci cëgati nga xam ne sunu boom dong moo fay teew kon bu bu bu loolu kon leeree ñu dikk nag ko- kon nag ci wirdul maxus kon moom wirdul maxus moom nga xamante ne kan mooy moom la ñu war a wo- ci ci waxtaane wirdul maxus sëñ Tuubaa moom la ko yàlla jox mi ngi ko ko joxee ca ama bak sësin ca gànnaar maanaam gànnaar la ko ko joxe nga xamante ne mooy atum junni at ak ñaar fukk a- atum junni at a- ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar mooy lu muy li muy taarixale ama shahid naa bi karam xam daal tëdd nga ju tëdd nga am na foofu wax naan yaa ma ma shahidu lii bi karam yàlla gu- gu- maanaam pay ba seeral nañ ma ne tëdd nga am naa ko kon léegi da- da- day mel ne kon wé- wedd wi kon ca tëdd nga jooju ci ci- ci la bokk wedd wi nag maaxus nag maanaam léegi am na ñetti façon yoo xam ne bokkuñu am na bu gudd lool am na bu digg doomu am na bu gàtt lool bi gàtt lool nga xamante ne mooy alwirdul xaatimu almaquusu minallaahi bi rasulil xaatim boobu moom mel na ne moo gën a mingoo ak jamono ndax si si Sëñ Tuubaa ni mu déggee jamonoom ni ni ko suñu bés waxee ci ci ci minan moo gën a xam aw aw jamonoom awntem xam ne kat jamono dana xat kon jombul am na ñoo xamante ne bi gën a gudd mooy dañ ko am jot ga am ñoo xam ne bi digg doomu am ñoo xam ne nag ñoom dañuy fëkk seen waxtu kon kon ñoom bi gën a gàtt te te te ñu naan ko alwirdul xaatimu almaxuus minallaahi bi solil alxaatim wirdul ñaari yu jëkk yi bu gudd bi ak bu digg doomu bi bi moom ño yooyu moom seen façon nga xam ne moom léegi gudd na am nañ waxtu woo xamante ne wuute na ak bu bu ci bi ci des mooy bi nga xamante ne moom mooy al wirdul xaatim wirdu ñaari wirdu yooyu ñu ñoom suba lay doon ak takkusaan mooy amu ci mooy seen waxtu bi nga xamante ne nag moom mooy maanaa léegi alxaatim moom waxtoom mooy tusbaar lay doon ak timis sëñ bee ko sëñ bee ko waxee noonu ne ne ne seen seen wax oto ngoog su dee mo ñoom nag am nañ mo am nañ am muxtaar am nañ daróor yi képp koo xam ne da nga jëfandikoo ña- ñaar yu jëkk yi nga xam ne mooy bu gudd ba wala bi diggu doomu yow te nga jëfandikoo suba gi sa muxtaar mooy suba gi ba ba ba sawaal mooy saa su jant bi jëngar bi ko ba ba ba jëm wax ba tisbaar si dugg su boobaa yow sa muxtaar jeex na sa sa daruur yi nag nga xam ne moom fi nga koy fa fi nga xam ne ci la waxtu wi di jeex a takk mooy kat maanaa maanaa léegi mooy tusbaar ja ba takkusaan xam ne ne léegi muxtaarum maanaa léegi muxtaar ma jeex na moom cet cet tusbaar waaye kon kon léegi sa sa sa sa daruur yi moo xam ne li mu di ñàkk moom fexeel ba balaa takkusaan nga ci ci ci nga def ko su dee nag takkusaan bi takkusaan bu timis muxtaar la timis ba baggee jëm fajar ja darur yi la bu dee nag xaatim bi nga xam ne mooy bi bi gën a gàtt moom tusbaar la ak timis moxtaar bi nga xam ne mooy moxtaaram mooy kat timis timis tusbaar ji moxtaaram tusbaar ba takku kusaan moxtaar la tus tusbaar ba takkusaan moxtaar la timis ba gee darur yi la bu dee ci gee bi nga xam ne ci ci timis bi bi nga xam ne ci ci nga koy def moom it timis bi ba gee muxtaar la gee ba fajar si di xar ba tey daruur yi la soo ko dee dee def da nga da nga def naa fi la fukki rakka boole kook safaak witar ñu ñu taqaloo kon léegi ginnaaw gee kon soo soo jullee soo defee say say werd ba ba ba julli gee ba noppi nag da ngay daal def fukki rakk ak ñaar fukki fukki rakk moo mooy werd bi ñetti rakk yi di sa sa witar waaye day day taqaloo soo ko soo dee da koy def nag alxuraan ji su dee da dangaa mokkal li gën a néew ci ci yow mooy ñetti isib wala ñu ne am ñu ne ñaari isib ak nisif léegi nag su dee da nga koy ci ci werd noonu xam ne ne ne ne yow mukkaloo mën naa am kon su boobaa bàyyi kon léegi mën ngaa jàng ci jàng ci ci fukki rakk ya lu la ca neex moo xam ñaar ñetti lixlaas ngay jàng ci ci ci rakk bu ne wala loo man ci alxuraan su dee nag da ngaa xaw a xat ba wirdoo ba ba naafile woo naafile gi ci guddi gi xam ne xat nga. bala ngaa tëdd jàppal ba sell daal di jàng benn amana rasulu ba ca mujjug sarwa soo ko jàngee ba mu jeex sëñ bi nee na ci masalik am nga yoolu taxawi guddi gi waaye nag loolu da ngay jàng rek guddi gi soo xëyee fajar sa ba yoor yoor bi di dang su boobaa nga xam ne fi nga xam ne ci waxtu nafila yi jeexagut ci bëccëg gi su boobaa da nga koy fayaat jikk waxtu maanaam tusbaar bi dikkati nga xam ne moom léegi su doon da ngay da ngay def xaatim bi fa ngay koy defewaat kon moom moom léegi kon naafila gi da da koy fay si si si bi nag nee na ñu koy fay xam nga naafila ci fiq moom kenn du du ko fay waaye mu ne fii danañ ko fay maanaam li ñu koy fayee mooy ngir dañoo bëgg nga ci nga def ko farata ci yow. ba ba ba taxaw ak moom ba ba doo tayeel ba soo ko bàyyee tey soo soo liggéeyee doo ko defati waaye kon moom léegi nit ni kul farata waaye nag luñ sopp la loo xam ne dañ ko yéegal ci farata ngir ngir bëgg waaj yi fonk ko kon léegi maanaa léegi kon yow naafile yi kon kon moom léegi fukki fukki rakka la ak ñetti rakka yi muy sa safan witar su dee da da nga koo defut ba tëdd di jot xat nga nga jàpp ba sell jàng amana sul benn yoon am nga yoolu taxaw taxaw taxaw guddi gi ñu ko suñu tubaab waxee ci ci masalik soo xëyee fayal nga ba ba jant ba zawal di di yoon ba jant bi jëngar bi ko jëm ca tusubaa ja su boobaa da da nga koy da ngay fay nafila gi loolu loolu loolu lu kon maanaa léegi mooy maanaam naa léegi julli gi nga xamante ne day ànd ak moom ki ki nga xam ne nag mi ngi lay jox nag wirdul maxuus maxuus ki la ki la koy jox day nekk koo xam ne dafa am ndigal ci jëfe gi am ndigal ci joxe gi am na son san benn waay boo xam ne ni da- dafa mënta ñëw kër gën di wax ne moom kat dafa jënd téere bi rek ci ci jàkka téere yi di di ko wedd dama ne ko ah loolu de moom ci tasawuf xamuñu ci lu waaye di def ci lu dul isn suñu si ne woon na laa taf aloo shay'an bi ghayri isn wala isn shartun fi qabuli shay'in maanaam di kat sart bi am ci nangu jëf mooy faaw nga am ci ndigal isn bi mooy misaal foofu sëñ Saliou mu baax ma daa ma sa ñëw xel koom fekk ñëw ràbb fa ay néeg mu xool si si say dañoo ci waxoon ne daa xawoon a maanaa léegi sib lool néegi gi ñax yi daa ndax lakk yi nga xam ne am na ci mag ñi ye- seen téere yu mag ñi yu yu bari bari néegi ñax yi ñoo ko yàq ñoo ko yóbbu mu daal di ne ma toog ci njowaan gi daal di daal di joxoñ daal ne maanaa di laaj ba xam ko def lii ka ka ka ko def ne xam naa diggul wolof wala wala wala fi mag ña ba mu mu daal neen ne ko ma su ma na de suñ bi ne ko loo ci jublu mu ne ko xanaa damaa toog awma lu lu ma def ma ne kon de naa takk néegi sëñ bi ne ko ah toogoon day ci ndigal moo gënoon toogoon ci ndigal xam ne léegi to- toog rek dangaa toog di defoo dara amuloo def nga toog waaye ci ndigal la moo gën def ci lu dul ndigal loolu kon tasawuf moom maanaa sëñ abi bu mu sëñ Malaymin Jóob bi bi bi ko bay dem ba Jóob yóbboo ci sëñ Saliou sëñ abi yóbbu kon sëñ sëñ Malaymin Jóob ne ko boo demee kat abibu buñ la jàngaloo jàngal buñ la liggéeyoo liggéeyal buñ la tëddaloo tëddal sëñ dem ba wax ko loolu sëñ Saliou sëñ Saliou bi nag bis muy wax sëñ abi naa ko ah xanaa kon de xanaa fu tëdd ak liggéey maanaam tolloo day kon xanaa kon ndigalaa tax kon loolu kon leer na kon kon moom ministre def kon ci tasawuf dara te te amoo amoo ci ci ndigal kon léegi sëriñ bi joxe wedd wi dafa war a am ndigalul jëfe gi ak ndigalul joxe gi loolu soo demee sax ca ca jawaahirul mahaani da nga gis sax ñaa la si amputi fukki ni dong la amoon ijaasa jo jo- jox leen wedd wi kon kon moom wedd wi kon moom maanaam faw nga am ci isnu jëfe gi ak joxe gi loolu nag da daa mel ne ñu ñu ñu ñu ñu bari bàyyiwuñ ko xel waaw te ko ko connexion la boo boo defoon sa sa sa kër ba mu njëkk da dafay fiil te te te teg ko ko ko ko jox patalam ba jógee si rek incha allah doo doo am courant kon kon kon moom léegi faaw nga am connexion faaw nga am ak jokkaloo ba àgg ca xadra ba kon moom maanaam naa léegi së- sëriñ bi bi nga xamante ne moom mooy joxe werd wi war naa ci war na ca am ndigalul jëfe gi ak ndigalul joxe gi ndi- ndigalul jë- jë- jëfe gi doyut kooku ci ci moom moom la yem waaye ndigalul joxe gi mooy koy jàllale la ci ci keneen ko kon daal mel na ne maanaam léegi kon léegi wérdul maaxuus moom ñe- ñe- ñetti façon la yëpp benn la Sëñ Tuubaa moom moo moo xam ne kat aw nitam ñii mënuñoo jëfandikoo lu lu gudd li ñii am nañu seen waxtu mayewut ko mu jox leen bu digg doomu am ñoo xam ne si ñoom dañuy fëkk ñoom waxtu mu jox leen bi nga xam ne moo moo gën a na gàtt te mooy alwirdul dul xaatimu almaxsu min ilaahi bisul xadim waaye lu wa- ci waaye yëpp ci yonent bi bi ci la jóge ci la ci la bàyyi koo naka naka noonu it maanaa léegi kat wuute gi gi gi mu wuute maanaa léegi kon li li muy firi mooy kenn ku nekk la ga nga jëkko wirdul xa- xaatim bi nag xam ne moom léegi mooy bi nga xam ne moo gën a gàtt te te te mu jë- jë- génn yaakaar naa boobu jëmbul kon mën naa am li muy junj bari na mën naa am kon dana ju junj ne kat bii mooy wérd bi mu mujj génn dana dana junj ne kat maanaam kat jëmbul ginnaawam wérd du amat am na nag ñoo xam ne dañ dañ ne ma di loolu kon mën naa am naa am wérd sax dana mën a gënaat ginnaaw ba waaye mën naa am day wérd bi nga xam ne moo gën a matale ci wérd yi yaakaar naa loolu lay firi waaye nag loolu moom it ay tawilaat rek la mën naa bañ a fi firi sax loola kon daal kon ma maaxuus kon mi mi ngoog bu ñu nee nag maaxuus maanaam tur bi noonu nit nit ñi ko nit ñi ñoo ñoo ko tuddee wala moom daa mën a gàttal aw tur waaw waaye tudd noonu ndax ndax ci ndax am na ci boo xam ne mi bi gën a mag dëgg-dëgg maanaa maanaa léegi xersun mania bokk bokk na ci turam yi maanaam naa nga xamante ne maanaam kaaraange ngelaw la joo xam ne ku ku koy jëfandikoo daga mucc ci seytaane daga mucc ci sawara kon ci njariñil wérdu wi bokk na ca suñu tubaab nee na képp koo xam ne da nga koy jëfandikoo da nga doon mu'min muslim muhsin te da nga am saadata dare ni waaye nag bi ci gën a neexati ci nun donga yi suñu tubaab dafa wax ne at taalluqu yaxsulu bi axzil wirdi sawaan saaxabal xidmata am lam yu saaxibha nee na day taalluq aju ci ci man su bis pencee ñu nekkat saab donga nga da mi ngi dana amee ci dana amee ci jëlu werd bi moo xam sax liggéeyal nga ma moo xam liggéeyaloo ma foofu nag bu am solo mi ngi fi soo soo bu am solo bi mooy ñu bari ci noonu sëriñ bañ jëbul sax jëbluwul ci kenn foofu soo soo bu am solo am sëriñ bu amul ab sëriñ kon yow daa mel ni kurus gi bu ko tegoon nii teg nañ kurus kurus gi nii wut ay per yu niroog moom teg ko fii ku xool yaakaar ne kurus gi day per yëpp ci la bokk soo yëkkatee kurus gi maanaam période yooyu daal du nga xam ne ko kon kurus gi nos gi ci maanaam ñi ñu nekk ci nos gi ñooy murid ya loolu loolu nag si solo boobu bu am solo yaakaar naa loolu kon si kon soo mënte vérifier ba xam sab sëriñ am na am na am na sëriñ wala mënoo koo xam ci batin da ngay soo soo jëlee werd wi ci ku koo xam ne am na isnub jëfe gi ak joxe gi yow da nga am connexion direct ci Sëriñ Tuubaa kon yow sa temps la kon léegi dana dana wér foofu man moo tax ma di ko soññee lool ndax bëgg nit ñi jëfandikoo ci ci werd wi ndax ndax kat léegi kat jamono soppi ko na ñu baree bari sax da dañuy woote ak cëriñ te sax xamuñu sax yoon wa kon nag ginnaaw loolu am na kon maanaam suñ seel yu ne woon na ba ba baraa na ñuy woote daal di tërbiya te xamuñu yoon wa yaakaar naa it loolu moo moo xew ci lépp kon nag képp koo xamante ne da ngaa bëgg sa taali bi taali bi wér wala sa sa taxalluq ci Sëriñ Tuubaa wér sa sa sa njëbal ci ci moom wér. dangay fexe ba jëfandikoo am werd bi ci an isnin boo xam ne kooka it dajaa am isn ci jëfe ga ak joxe ga su su su boobaa yow kat incha allah taala soo ko jëfee te nag sart yi it kon mooy ñu xam ne werd wi du du murit maa ko du murit de werd du jullit ñi suñ suñ suñ nee na yàllaa ma ma ma koy jox ma jox ko jullit ñëpp nee na it di ko jëfandikoo digal bépp jullit bu góor ak bu jigéen. ñu koy jëfandikoo muddate mukk si him wa mukk si him na fi duniyaa fekk ñi nekk si kaw suuf ne nañ koy jëfandikoo waaye du du mu de wérdun ju ab jullit la ca sart ya képp koo xam ne da nga koy jëfandikoo faaw ngay taqook mbooloom jur ñi foo nekk ñu ay tiyaan lañ ay xaajir lañ ay islamiste lañ ci seen biir ngay nekk jàkka bu ajuma jotee dangay dem julli ca jàkka islamiste ya ndax yow ab jullit nga bu bëgg jullit ñi nekk benn amul ju jëkkë jàkk islamiste amut jàkkay murit amut jàkkay tiyaan amut jàkk jàkka ji am mooy jàkkay yàlla kon yow foo nekk da ngay da ngay da ngay salaatul jamaa da da nga koy julli ca biir julli ña loolu ko kon moom léegi kon léegi nit ko kon léegi wedd woo xamante ne day taqale waaye wedd la woy taqale loolu it kon man lu mat a bàyyi xel la wedd bi bépp tiyaan boo xam ne dégg nga ko mu neex la ñëwal jël si ko bépp xaaj bu mu neex jël si ko bépp islam si boo xamante ne neex na la jël si ko xam ne weddu wi du weddu murit du weddu tiyaan du du xaajir du du du du du islamiste waaye weddu ñëpp la ndax weddu wi ku koy jëfandikoo doon ab jullit da nga julli ca waxtu ya da nga da nga sàmmonteeg attay sariya ba ba mu yeex takk da nga moytoo lor sa sa moroomum jullit da nga jéem a jariñ jullit ñi kem tolay kattan doo berew mukk ci àdduna foo foo foo nekk fa fa jullit ñi ngay ngay nekk fa fa ngay nekk koo kon yaakaar naa kon moom léegi bépp jullit boo xam ne bëgg nga lu baax man mën nga koo jëfandikoo te li nekk ci biir wérd wi lépp it xadis la ci la sax ay ñaan yu tamit sax di di digli woon la wala ay ay alxuraan yoo xam ne ni alxuraan ci la nekk kon léegi kon kon moom ëmbut lenn lenn loo xam ne ab ab islamiste su mënu koo ñàkk a jëfandikoo wala ab tiyaan wa ci ci wàll la keneen te si si tubaab nee na bu dee tiyaan nga bu bu ne la kat yow kat yow suñoo jëfandikoo weneen werd wud wi si si tubaab ne la sëñ sëñ Basiru ne kat werd wi soo ko jëfandikoo moom moom moom maaxus mii mel nga ne ko jëfandikoo weddu Cheikh Ahmad Tiyaan mel nga ne ko jëfandikoo weddu Cheikh Abdul Hasan Sasali mel nga ne ko jëfandikoo werd yëpp ndax moom léegi te daa lamboo ye secret yi nekk ci awraad yooyu ba noppi am nag loo xam ne secret yooyu secret boo xam ne awraad yi amuñu ko kon léegi képp koo xamante ne yaa ngi koy jë- jëfandikoo bu ñu la woon tiyaan bi kat saa soo jëfandikoo weneen werd ndog nga ci yoon wi déedéet bu dee wii moom boo boo ko jë- jëfandikoo mën nga ko booleeg ba ba nga yor mën mën ngaa bàyyi ba nga yor te jëf- jëfandikoo bi wii ba noppi doon ab tiyaan ba noppi nag maanaa léegi doo dog ca yoon wa ba noppi nga boole Sëñ Tuubaa wi ak booba yaakaar naa loolu lu am solo la ndax si Sëñ Tuubaa yi li li mu andi woon sëñ sëñ Maam Cerno Ibrahim daana jëfandikoo xaajiriya daana jëfandikoo saasaliya daana jë- jëfandi- jëfandikoo bidul maxuus man mii di wax ak yéen it maanaa naa léegi yor naa isne ci jëfandikoo wedu saasaliya yor na di jëfandikoo it maxuus sëñ Saliou déggoon naa ñu wax ne que ci mujj gi daana jë- daana joxe wirdu tiijaan kon moom noonu amunu amunu noonu maanaam naa naa naa léegi wirdu woo wirdu woo xam ne dalay tee def nangam ci lislaam wala wirdu wirdu woo xamante ne dalay tàggaleeg sa sa sa morom kon awraad yëpp kat foo ko gis luy jéem a taqale taqale jullit ñi la luy luy jéem a taqale diggante jaam bi la ak ak boromam waaye du du lay taqale kon kon kat maanaam léegi. Sëñ Tuubaa dafa wax ne werd bi ak jaamu du ko dog soo doon werd ba ci yàgg nga julli jot maanaam yaa ngi ci jàkka ji laa wax nag julli jot na limaan ji mi ngi taxawal kon léegi da dangay téye si kurus xam fa nga yemoon julli ba noppi su dee waxoo fi leneen waxi larax waxi àdduna kon su boobaa dangay continuer werd bi su dee nag wax nga fi nag lu dul farata ju ju far lool su boobaa dara ngay tàmbaliwaat werd wi nga xamante ne kon ak jaamu du yàq du yàq werd wi soo doon werd ba ci yàgg nag nga juum jàng aaya ya alxuraan fàtte woon kat sa xel seen seen ab ab jukki nga di ko jàng ba for maanaam naa léegi werd wi faay la saa su su bu sa xel dikkee da nga da ngay continuer. waaye nag waxuñu ne nag ngay ci ngay wér ba càgg nga nekk ñukk dem jàngi alxuraan dikkaat déedéet ci ci ndax bokk na na ca sart ya bul jàkkaarloog loo xam ne day jël sam xel ab photo pho- photo doo ko xool wala ay dessin yoo xamante ne léegi ci wala lu ñuy jàng loo xam ne soo ko soo ko dee xool da ngay mën a liir mbind ma loola doo ko def ndax léegi teewloo loo loo loo loo gi ñu bëggoon ci werd wi kon léegi doo am maanaam foofu am na fi lu am solo loo xam ne ni mi ngi xew ñuy julli di teg foto si Sëñ Tuubaa ci seen kanam lu am solo la loo xamante ne ginnaaw maxuus soo ko soo ko doon werd sëñoo teg aw foto ci ci sa kanam sëñoo bu doon sa jumaay Tuubaa ja jumaa joo xamante ne di di daa bari lool da ngay sëgg. ndax dessin yi boo boo ci boo ci dee xool dalay jël kon ginnaaw loola la kon kon nag rawatina kon kuy julli werd wi li muy for for jigéwul julli ah ji ji ji moom ndax dëgg dëgg mbir ma mu muy julli ginnaaw loo xamante ne sala salaam bi ko yàlla jox da ko yéegal ba ca pay ba mu dee ak moom ci ca ca loola loola kon for ga ci ca ëpp na kon nag maanaa ñi nga xam ne ñooy julli di teg aw aw foto jiw ci ci seen kanam. loolu de moom suñ suñ tubaab baa xamu ko ndax wird mi sax soo koy def suñoo def loola maanaam maanaam soo dee wird ci ci ci wird bi na nga teewlu ki nga sëñ bi la ko jox wird bi su dee su dee mat nëb sëriñ aarif billaahi la ku am connexion la am nag leer goo goo xamante ne mën na laa jokkaleeg xadra ba da nga koy teewlu ngir dimbandiko ko waaye la sëñ Habib bu Mbakke Ilimaan waxoon sama mag sëñ Mor Talla Diop da da- dafa laaj si Habib bu bu ne ko kan mooy tarqiya ci yoon wi suñ Habib bu bu ne ko loolu day laajoon naa ko sëñ Abdourahmane Lo mu ne ma yoon wi day fu fu fi waay nekk di liggéey ba war a yéeg sëñ Tuubaa moo koy yéegee kon sëñ Tuubaa mu nga xamante ne moo moo moo yor réseau bu bu mag bi ci ci ci yoon wi kon damay yaakaar ne képp koo xam ne da da da ngay tëbbu da ngay tëbboo ci moom teewlu ko moom. xam nga teewlu si si si Sëñ Tuubaa yaakaar naa moo gën a ne yomb teewlu Sëñ Gora Njaay ndax ndax léegi Sëñ Sëñ Tuubaa soo soo ko dee teewlu yow sa image bi bi ngay am image day doon bu bu bu mat sëkk bu amut njaxas njaxas koy teewlu ku nekk nag sekal dana dana dem ba sax sax mun a yar ci loo xam ne mën naa am dana dana dagg connexion ba kon léegi teewlu si si Sëñ Tuubaa ci wérd wi tëbboo ko foofu nag Sëñ Tuubaa waxaan na fi leneen soo dee siyaare ëpp sëñ wala ngay teewlu ci ngay tëbbu ci ëpp sëriñ na na nga ko jaaree ci ci ci ci yonent bi baa ngi seetu salaam ndax leer ga ci moom lay jóge su dee da teewlu woo yonent bi ci biir teewlu sëñ ba doo am kon connexion ndax di nga si wax ne yaqudu fi zahiri wal baatini man ataahu lillahi fii ku kuli saman yonent bi baa ngi seetu salaam moo yar gaay moo leen di yéegee ci waxtu wu nekk am na am na fu fu fu mu waxoon ne mag ñi day seen seen gàllankoor bokk na ca dañoo yaakaaroon ne kenn mënta àgg ci yàlla ci lu kenn kenn mënta àgg ci ci yonent bi ay sa seetu ci wasalaam lu dul da ngaa am ay ay wasaayit yu yu lu jeex sëñ sëñ su lu jeex waaye nit mënta jóg directement am connexion ci ak ci yonent bi te xamuñu ne al alxaqiqatul muhammadi sarifa ba tey mi ngi dox moom loolu mag ñi moom jumlu kon ñoom amoon nañ ci gàllankoor ba tax ñoom daa am ci sëriñ rek sama teen mooy sama sëriñ wala sama xarit jaay sama sëriñ waaye amoo góoyo kenn ku nekk ku naan yonte bi sama sëriñ moom ci sëriñ Tuubaa laa ko digg woon oh istiqbaalu xibla wedd bi soo soo ko soo ko dee def da ngay jublu penku doo jàkkaarloog lépp loo- ci loo xam ne mën naa fëkk sam xel photo laag wala ay di- di- di- dessins yu bari la ci wala mbind moo jàng donte ne sax alxuraan la wala xasida xasida Sëñ Tuubaa toogaay ba it Sëñ Sëñ Tuubaa li nga xam ne moom la gën a fonk ci toogaay di jaamu yàlla mooy toogaayu julli julli maanaam fenk këkëlaay moom jëkkut ca jëkku ca ndax ku- ndax kuy toroxlu doo fenk layoo am maa nag bu dee ne koo xam ne day wér ay junni wér ay junni yu yu yu yu bare bare moom mën na mën na wér di di di di dox ak a wax moom waaye koo xam ne lii wér yu moom dafa ah da- moom da- da- dañ koo jagleel waxtu ja- jagleel ko aw melo moom léegi da da ngay toogee ni nga xam ne kuy julli noonu lay toogee waaw waaye nag soo amee ngante ca ca ca loola du du du ku ku yàq mën ngaa fenk fenk laayu mën ngaa toogee gi waaye da nga jul na xibla lu dul da ngaa nekk ci oto wala fas ginnaaw naa fil la soo nekkoon ci aw fas wala oto foofu foofu fu mu jublu foofu ay safeen ko loola kon moom dara niw ci maanaam at mi nga xam ne ci la nit ki war a jël wird wi mooy at mi ko julli ci waree ju julli saa su waree maanaam lée- léegi waa ji su boobaa mën naa jëfandikoo wird wi waaye nag maanaam ci sunu noonu su sunu aada yi yi nga xamante ne noonu daanaka kenn du jëfandikoo ko ko ko wet bi da da da yaakaar ne da ngaa war a bàyyi ba ba màggat waaye ndax da nga màggat xam nga la- laaj bu am solo la ndax ndax da da da nga màggat xa- xa- xale bi su doon ba mu tàmbali julli mën a jàng mën a mën a xam ñu ne ko kat murid kat moom day jëfandikoo weddu wii weddu bi nag sart bi mooy islam jëpp ngay jëfandikoo aw say wi. charia jëpp ngay jë- jëfandikoo wérd wi nag su- soo jëfandikoo charia ba noppi nag maanaam léegi é- état bu njëkk bi ci xaqiqa mooy jëfandikoo wérd wi waaw murit boobee xale boobee insha allah sañ nga nga nga ko ci lépp lu bon moom xale ba du toog ak mag mu yàqu du toog ak gone gu bon du toog ci jotaay boo xamante ne day yàq kenn ndax moom nit ñu baax ña lay toog toogal gone ga sharia jëpp lay jëfandikoo waaw ku ne ko googa su su- xam nga ca abu ci sidul bustaami daa bu bëggoon a jàng alxuraan naafila bokk da daa gis dane bàyyi man de dama bëgg a naafila bàyyi ne waa gone ga dama ngaa toog rek mu ne ko, ah waaw waaw léegi maanaa léegi sunu borom ginnaaw da- da- dafa digle ne naafile leen ndax nag naafile googu du lu baax rek mu ne ko mu ne ko ah kay mu ne ko ndax ndax kon mag rek moo ko war a def maanaam mag rek a wa- ci war a baax bu dee nag naafile gi nii am na ca nag lu ma déggoon ci Sëriñ Mor Mbaye Cissé lu lu ku ma dégg ne Sëriñ Mor Mbaye Cissé wax na ko ko ku ñuy wax Sëriñ Mara Silla moom Sëriñ Mansour Silla moom Sëriñ Moussa Silla daloon naafile si si si Sëriñ Mor Mbaye Cissé génn nii ci guddi gi seen ko mu mu naafile mu ne ko go gone kat xa- mu ne ko xam nga li ngay def lu lu mu doona mu ne ko ah mu ne ko da- daa mel ne ab liir bu ñu yan saakoob ceeb ndax dana ko jëriñ xam naa kon nag soo déggee noo ne man nga ne kon xa- ci xale bi day kon moom fekk muy am kon 18 ans su lañ jëfandikoo wé- wédd maaxoo si wiit maanaa léegi mën naa bañ a nafil la lu lu- lu ci tax ndax su su boolee wedd beeg nafil léegi mën naa génn ci àdduna ndax ndax léegi set gi mu set maanaa léegi nuur nuur naa la nuur la wala xamante ne wala la mu tam sa sunaar maanaam léegi takk gi maanaam la la koy jëfal day gaaw lool su boobaa kon mën naa génn ci adduna génn goo xam ne du du du ci mën a del siwaat maanaam tey su bëggoon a tey jaay su bëggoon a liggéey boo yeexee loola mën na koo ga- gàllankoor ndax sell ga muy sell tuuti mën naa jaxasoog ñëpp kon nag jumbul kon su boobaa mën naa jëfandikoo wedd bi képp te bañ a jëfandikoo na na- ci naafile gi al al al alxuraan ji nga xam ne moom moom moom la waroon a jàng ci ci naafile ga mu di ko jàng ci bëccëg gi waaye nag loolu lépp nag li gën a gën mooy muy mu nay jëfandikoo wedd bi tey naafile la ndax kat gàttu fan moom si si si tubaab ne woon na gudd gu- gudd du- du- du- du fan du ci bari at mooy jëf ju baax ju ju ju- ju bari rek ne fi waaye yaakaar naa moom léegi ndax eh, maanaa léegi ci waa ji su bu defee nangam gàttu fan loolu loolu moom du- du waxi dara kon léegi ci xale bi mën nay ma ma mën nay wedd wedd bi te tey tey naa fi la waaye nag ki am fukki at ak juróom ñett nag kooku moom nga xam ne moom moom la ñuy togg jëf kooku moom moo war a wér di wedd bi yaakaar naa lo- lo- loolu kon mën naa am leer na ndax wedd bi am na lu ñu ko mën a wottee déedéet am na ku ma diggoon wa- wax naan wedd bi si si si si waa da koo yeesal ba nga xam ne xidma sax ci la bokk déedéet xidma lu ñuy noppaloo la xidma lu ñuy no- noppaloo la waaye wérdu yi moom mooy connexion bi bi bi dox sa diggante ak sëñ bi sëñ Tuubaa gannaaw nee na al taalluq aju ci moom yaxsulu bi axsil wirdi dana amee ci jëfi jël wirdu bi nee na sawaan saaxabal xidmata am la muy jaiba moo xam wirdu bi bi nga koy jëfandikoo yaa ngi koy liggéey sëñ Tuubaa am liggéeyloo ko yow am nga ak ci moom taalluq kon kon kon léegi taxal ko boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa lu- lépp lu lu lu muy diggee ci la koy diggee kon léegi wértu bi da da da koy maye te xamuñu leneen nag lu Sëriñ Tuubaa bind ne ku koy jëf da nga am ci moom taxal lu may wedd bi kon kon kon kon moom weddi moom amul kon ab badil maanaam léegi li moom mooy li gën a am solo ci murit bi mu dox dig mu- muy buum gi taqale diggante moom ak Sëriñ Tuubaa kon moom ko- ko- kon moom yaakaar naa kon badil ko ci ci kon amu ci xam naa ne ne kon ñi nga xamante ne ñi ngi ñuy digg ka seetaan ñu- nañ gën a fonkaat wedd bi ndax day nit bu nekkee ci dara war na koo gëstu nit daal wut na ñàkk bopp nekk ci lenn ni ko ma doon netti sànq ne da- ba ma laajee ci li li li ñu doon wax ñii léegi ba noppi mu ne ma ah waaw nit moom su dee dundu tayam gii ci la dundu ëllëgam nga aju te te dundu tayam gii wóoru ko ndax loolu moom wóor na sa sa dund tey gii si teel sa dund ëllëg aju bu dee mu ne nga murit nga dangaa war a laaj luy murit am na ko moom moomu wax na ma keroon ne ma dafa am diw sàngam moo xam ne daa ñëw jébbalu si ba noppi ci ak kilifa gu mag nee na ba mu génnee mu ne waaw ci ci ci après après nag question bu am solo la après moo doon ñu ne ko wér wér wér du waa ngi nii sart yaa ngi nii Sëñ Abdou Khadir Mbacké radiyallahu anhu 88 moo ko ñëwee fii vacances dem fa moom mu- mu dem laaj ko wér ma xuus mu ne ma ba- baax na dafa jug loolu jug ci saal bi dem ci néega ba indi wérdu wi taxaw di dama ko maanaa leeral yónniwu ko de yónniwu ko ah moom moo jël moo moo jóg ci jóg ci photo bi dem ca néew ba génne ko ñëw taxaw tugul de tugul taxaw kon jumbul kon maanaam léegi kon mi mi ngi may ci wan kat yitte ji yitte woo gi loolu do- doomi si si si tubaab yi si mat gi neex na gone su ndaw ñëw fi yow borom millions yi di ñi nga toog nee waa ji moom joxu la dara tax laa jóg ci ci photo bi dem ci néew ba indil ko lim lay laaj. ba noppi taxaw di ko wax toggoo de loolu loolu ko kon moom ñi koog maa ñooñe nag loolu la ñu nekkoon loolu dong nga yoon wa lu lu lu dul loola lu bees la waaye du yoon wa aw ñal la te te wolof nee na aw ñal la jëwul kër. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala